ci Abdoulaye Diop euh, jaajëf euh, l'homme passe partout ñu ngi leen jaajëfal ak auditeurs yi nga xam ni ñooy déglu RFM la rajo leader yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ma ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye pour le moment euh, laata baan di yegg si ndax ma nga ca fi ñu toll ni éléments yi bu baax a baax Ndiaye maa ngi lay siyaar. ok bàyyi naa la ma wax. bàyyi na la wax. ban jugan mu ne ma bàyyi na. da daa bàyyi. ah loolu wax de. <laughs> waaw nañ nañ joxol. ayca maa ngi lay delloo ziar. Abdoulaye Diop micro bi yow da nga koy tëj ba nga xam ne dañuy jox lettre directeur yi ne baan accepté waat nañ ko. kii baan réhabilité dans ses droits. Ah, ah, réhabilité dans ses droits. ah loolu laa wax de fekk naa ko fee muy monté ma dégg benn xale bu jigéen mu naan xaw ma kan moo ne ko dangaa fooyee sa bopp bu ëmb. ma ne ko baan bàyyi lii te nga jug ñu dem xalaas yi mu ne ma bàyyi naa. daf bàyyi xalaas bi. wala ah, daa bàyyi lee wala xalaas. bàyyi naa yaa ngi may indi ay problème lee la bàyyi wala xalaas bi la bàyyi. en tout cas bàyyi na daal. <laughs> maa ngi leen nuyu bu baax Aba. maa ngi lay fay jaay maa ngi nuyu waa Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom semaine bi yëpp ci xalaas incha allah di suñu journal fait divers bi nga xam ne euh, dañoo dem ba ñun moomatuñ ko. dañoo dem ba ñun moomatuñ ko. wallaay dëgg la ndax sénégalais yeeg fi ñu ko teg. wallaay daal na loolu sax. saa su nekk ñu ci dégg lu leen di jariñ. mi ngi boo paree rek ma doxal sama wala. ayca ayca ayca. ñu ah, salaamaaleykum mën nga nuyoo gaaw dañuy yëgale ñoo man da ngeen <laughs> ñoo wala ñoo <laughs> Njaay Njaay mën ngaa dem ci partenaire te yàlla tax ca ma door rek RFA xam nga RFA boobu ba léegi maa ngi leen di wax gàmmu téléphone boo xam ne da ko indil waa Sénégal téléphone yi dafa lëmbe àdduna surtout nag Europe ay Amérique ak yooyu ñëw Sénégal nekk gàmmu téléphone boo xam ne quatre téléphones ñeenti façon téléphone ñoo ci nekk muy Sense 2 Sense 2 Pro Allo 3 Allo 3 Pro euh, jaaykat yi ñoom nee nañu fi mu ne waa Sénégal dañ ko bëgg moo tax lu ñu leen ci jàppale rek pour ñu ñëw encore euh, jël ci yu baax téléphone Airfa yu baax yi. Mm-hmm. bokk na ci euh, Airfa Sense 2 Pro bi nga xam ne écran 6N la 16 giga de mémoire RAM 1 giga batterie 3000 mAh. mooy jël ñaari carte SIM mooy dual SIM connexion automatique mais également connexion 4G à boo duggee foo xam ne dafa am connexion dafay connecté wu directement caméra 13 mégapixels te li tax gars yi bëgg ko mooy dafa yomb dafa accessible 42 000 francs lay jar ak li ma la wax yépp ci téléphone bi nga xam ne téléphone yóbbulu ko dara 42 000 lay jar ñu garanti la ko 12 mois. Mhm. benn kalaj kalaj bu ndaw bu ci am damal ci kala ko jaay ci 12 mois yi service après vente bu bu dee da nga nekk Colobane demal ci Xuma et am nañu ko. waa mhm. kër Xaadim Rasul am nañu ko ca Colobane. Mhm. kër Xaadim Télécom am nañu ko si le multimédia am nañu ko ma yokk ci Grand Yoff rek. ah euh, Mor Ndiaye espace phone da koy jaay. Touba mobile communication TMC dañu koy jaay euh, duñu fàtte également waa perfect perfect men yi nga xam ne. produit Uniparco la euh, benn produit euh, Uniparco cosmétique moo ko indi mu di gamme spéciale pour sportif yu góor yi ak góor ñi nga xamante ne tout le temps dañuy nekk en activité dafay toppatoo seen yaram ci ay anam anam bu yàgg di leen yokk bien-être euh, yokk également seen forme di leen protéger ci rayons solaires yi ndax dafa am SPF 15 loolu boo ko déggee mooy maanaam lu lay protégé ci ay rayons de solaire mm-hmm. ñu def ko mu ànd ak ñaari gel de douche ak ñetti eau de cologne loolu mooy Perfect Men boutique cosmétique bu baax nag la wax am na yoo xamante ne ñoom turu cosmétique la rek. mais mm-hmm. boutique mm-hmm. cosmétique boo dem ci Sénégal. boo dugg fekk ko fa am am na solo. voilà mais cosmétique yi mel ni yi nekk boori zone de captage moom. am na solo <laughs> ndeysaan Ndiaye yaa ngi tooñ nag yaa euh, Baan ñu ngi lay euh, ziar bu baax di la jaajëfal di euh, nuyu waa kër gi waa Pirek ñëpp ñu ngi leen nuyu waaw waa waaw waaw waa Pirek ñu lay nuyu mooy fa ñam bi ji ñore bay buuj ah tarkal nga xam ni ku am. am xam-xam ci réew mi pour nga jàngee euh, ku baax ci réew mi euh, pour nga dëkk mbala fa nga jàngee donc euh, baan ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ak auditeurs yi nga nuyonteeg ñoom. non nuyoo bi des baan ñu ngi lay ziar chéri mari baan ah baan baaxkat bi nga xam ne ku baax bëgg la. Mm, ku bëgg lu baax bëgg la. Mm-hmm. yow nga xam ni heure boo xëyee. waaw ak bëgg eh, kii nag eh, Cheikh Bass Abdou Khadre rek la bëgg moom la yaakaar. baan ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama waa <laughs> yow xam nga caabi ji yow yow xam nga caabi ji. baan caabi ji daa gudd. non non caabi ji dooy mu piir sañu xor fa ñaam jay ñore bay puut. moom Serigne Bass Abdou Khadre taalib Cheikh Bassirou Abdou Khadre. Chéri mhm, Mari Baan waaw. Mhm. loolu la yàlla dogal. ayca yaa ngi lay déglu. <laughs> yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. Mhm. na ñëpp am jàmm am sutura. yàlla nañu yàlla musal te musal ñu ci lu baax. waaw neen yàlla musal ñëpp lu baax. waaw euh, te te te te te muccal ñu ci musiba ak balaa. ci bët bu ñaaw ak làmmañ bu ñaaw. ak euh, feebar yi nga xam ñu ngi koy dégg ci àdduna bi yal na ci yàlla muccal doomi réew mi far ci àdduna yàlla bu mu amati waaw mm. muccal ko muccal ko muccal ci képp koo xam da ngay sénégalais bu ne ci réew mi ak sénégalais bu ne bitim réew africain bu ne ci ci sa réew waa africain bu nekk fële waaw muccal ci bépp doomu aadama amiin yaa rabbi waaw waaw amiin baan yàlla suturaal ñun ñëpp mm, xalaas bi njëkk nga ni baan mu wax njaay démb de xaw nañoo rey Barcelone. bërki démb it xaw nañoo rey Liverpool. <laughs> na moom. <laughs> bi moom ñu ngi koy ñaanal bi yëpp wax dëgg yàlla waa Barcelone laa ko bëgg may. seen xol neexul. te dama bëgg seen xol parce que àdduna amul benn solo. sama lépp may naa ko Ismaïla Sarr. <laughs> championnat Sénégal fu mu toll. <laughs> xam nga kii ñu ngi euh, ma barki démb te douzième journée bi. maa ngi koy suivre de près film yi jiitu. fi ñu toll nii bu ma juumul Tëngéej FC. ñoo bu ma juumul waaw Dakar Sacré Cœur mu def. Dakar Sacré Cœur je pense moo ci topp. Ah. waaw. Ah, moo ci topp wala mu toppaat ci en ah, tout cas daal ngay xool. ah waaw waaw waaw waaw fi ñu di ngi noonu. Ndiaye sa waa jaa ngi noonu Ndiaye. <laughs> Ban Ndiaye sa Ndiaye fële hôpitalu Joal ba. lu xew hôpital Joal ba moom Saint-Louis dëkk di Ismaïla Sarr. waaw. ndar la dëkk. waaw doo wax ci Ismaïla Sarr yow. non Ismaïla Sarr kay damaa kontaan ci moom. waaw waaw kay saa waay équipe bu nee la war a jógee. na jóge équipe bi mu nekk dem ci benn ay Chelsea ak ay Cité yooyu foofu la war a dem. ok ndaxte mm. uh, foofu la yooyu. fa ñooñu la ay bii la. fu ñu jëm nga ni. Njaay ban. Uh, Caajaay moo fa am. ñeenti doom. biir këram la amee benn bi. ñu yóbbu ko hôpital bu Caajaay mujj rawale ko fële ca dëkk ba Joal. sage-femme yi Joal yaa ngi Caajaay ya liggéey ci liggéey bu am solo. ba ndaw si am ñeenti doomam. mais bu njëkk bi ci kër gi la mucc. waaw ci waxi sage bi. ñu yóbbu ko mu am ñeenti doomam te kenn césarienne wu ko mais ay femme la femme la boo xam ne moog jëkkër ji daan daal dañoo néew doole. mais ñeenti doom lañ am yoo xam ni daal mbir mi ki lu lu lu kéemaane la. lu hmm? yéeme. déglul sage femme bi dina wax ndaw si dina wax ak boroom këram. Hmm. déglul ni mu dem. maa ngi tudd Yacine Sall. may coordinatrice SR bu district sanitaire bu Joal. waa Caajaay ñooñu oo ci suba. amoon ay quadruplé. maanaam as ndaw soosin am ñeenti bakkan. macha allah ñu indil ñu ko comme Caajaay. amuñ couveuse te xale yi dañu tuuti ñu indi ko ci suñu unité néonatale bi nekk pédiatrie pour ñu jël en charge wax dëgg yàlla boobu léegi def nañ suñ kéem lay kàttan li ñu war yëpp si prise en charge ñu koy def xale yi ñu ngi si si vraiment elles sont bien parce que ay jigéen la ñeenti jigéen macha allah la euh, ñu ñëwoon tey pour indi leen xibaar bi ndax xibaaru mbégte la. si ñuy commencé mooy ñu ñaan yàlla ñeenti bant yi yàlla indi teg ko si suñu loxo yal na leen yàlla sàmm yàlla may leen wér ba ñu judd ba fekk ba ba ñu ba ñu màgg ba fekkee seenu njëriñu waajur yëpp ñu taxaw leen donc si loolu moo taxoon ñu ñëw tey ñu jokkoo ak yéen ndax xam nañ ne la nekk Europe du fii parce que bu fekkoon Europe la ba xale yi ëmbee seen yaay ëmbee ba léegi dañ leen di jël en charge boobu gannaaw bu ñu imbee ba ba ñuy màgg yooyu day am taxaw mais fii nag comme système bi du ma amul mais dañu buggoon rek képp koo xam ne rek am nga yéene am nga xool bu rafet yàlla mën noonal ko mais donte sax amuloo ko loo mënti am bu dee dërëm la bu dee ñaar dërëm la nga indi ñu taxaw ñu jàppale kii lii seen yaay les jeune vingt six ans la am mm, te loxoom jotul ginnaawam papa xale yi ñoom tamit seen loxo jotul seen ginnaaw lu ñu am akus néew ñu ngi leen di def di leen jàppale pour ñu au moins di ñu am gum si jour bi muy ordonnance wala muy meew ñu ngi ciy taxaw ko jàppale leen euh, lu am lu waay ngeen jàppale leen léegi nag yaay xale baa ngi nii moom tamit euh, dund na macha allah ak bakkanam dara jot ko. Mbaye Mbaye Mbaye la tudd. Mbaye Thiam. maa borom ngi ci jàmm bu baax a baax a baax. ci jàmm bu baax ñu ngi dund bu baax a baax a baax. man maa ngi sant yàlla. sama jëkkër ñu ngi toog. Sadio la tudd. amul césarienne. xale yëpp dañoo judd par voie basse maanaam dañuy J1 bi euh, domicile la juddoo léegi J ñeneen ñetti doom yi. ci lañ profité indi leen hôpital ñu mu ci hôpital. may sant bu baax. di sant suñ borom di sant tamit yéen sages-femmes yu baax a baax taxawu nañ ko nañ ko war a taxawee ko dégg moom xam ne lii moom kéemaan la duñ ci def lu du sant bu baax a baax a baax kéemtaan bi nga xam ne daal suñ borom def na ko lépp loo xam ne maam mën nga ko ci nga jàpp ci te yàlla ak sëriñ Tuubaa tax nekkul ne amuñu moo tax ñuy tàllal loxo Euh, ndax li yolof di wax yàlla ku mu rek am na lum tëral si yow ak lum namm si yow dañuy wax ne gémmiñ gu yàlla xar rek am na lum ci def waaye nag dafa nekk ne jamono ji dafa doy waar metti na comme nañ ko waxee ñeenti doom macha allah nga bëgg leen jël en charge dafay xaw a metti waaye mën a am rek nga sànni si waa caajaay la commencé parce que bañ ci jotee ñoom tamit wax dëgg yàlla def nañ seen kéemtalaay kàttan soo ñun taxawu nañ leen ba xale yi mucc ak jàmm comme ni ma ko waxee rek si njëlbeen nga ñoom ñu ngi dëkk njagan ñaaw njagan ñaaw lañ jóge ñu leen caajaay parce que caajaay seen district de référence. dégg ngeen ko noonu. Mm-hmm. xaar xale yi ñu nga fële ca Joal xam naa ni euh, fële leen dëkk boo ci caajaay. ñeenti gone lañ daal njaay waaw ku leen euh, bëgg a jàppale daal na nga dem foofee ca hôpitalu Joal ba. Mhm. fa lañ nekk sage femme yi ñu ngi leen di toppatoo. Mhm. ñuy félicité sage femme yooyu nekk caajaay ak sage femme Joal yooyu ndaxte. ay jàmbaar su ma su ma amoon baat ci réew mi. Hmm. xaw ma nag président Macky Sall tey bu koy def fu mu ko doon jaare hmm. ba ci même kuréel googu première dame bu Sénégal yi yor. Hmm. dañu war a def noo xamante ne ji. Mhm. bépp hôpital bu nekk ci réew mi. Mhm. ku fa accoucher ay. seex non pas seex sax. maanaam ñeenti doom loolu mu exploit la gën bu mhm. weesoo bu weesoo bu weesoo bu weesoo bu weesoo maanaam kiiraama sunu sunu borom euh, wasindanoo ñeenti doom yàlla teg ci ñoom loxo ba ñu mucc loolu moom kiiraama yàlla la après nag Euh, kiwu sage-femme yi soog a ñëw seen seen seenu xerañ mm. macha allah mm. mais tey li ñu waroon def mooy xaw ma solidarité nationale la xaw ma fu mu mënti doon mais képp koo xam ne loolu daal na la mm-hmm. hôpital bu mu mënti doon mm-hmm. ñu am luñ lay gunge mm-hmm. loo xamante ne ji dañ koy natt tekk waxuma nag mu doon ay cent mille ki deux cent mille nga xamante ne ji boo ca boo ca ruuyee sax mu jeex déedéet xam ne da nga cinq millions yii dañ koy baaxee bépp hôpital da nga koy def ngir ndimbal. Mhm. li ñuy def nii ay 31 décembre ñu naan xaw ma lan. ban njariñ la am. mais nag Ndiaye dama benn affaire. Mhm. dañ ko dul wax. Mhm. mais man day ah du lépp lañ mën a ci rajo. mais loolu. cest à gone ak juddam. deesu ko siiwal comme niñ koy def. dem toog ci télé ba ànd ak télé ba jonkuru nit ñi xale bi judd nga koy wane. kooku bu guddee fan ci yàlla la. li ñuy def ay affaire bébé de l'année nii. nit da ngay da évoluer mhm. yii ñoo ëpp njëriñ. kat mhm. bébé. képp koo xamante ne ji maanaam ci hôpital nga nekk nga réewle jigéen mu indi ñeenti doom. Mhm. te kenn faatuwul. voilà nga am ñoo jokkool ñooña am nuñ la jàppalee mën la koo gunge. loolu moo importance dañoo war a décorer ndeyam décorer baayam décorer sage femme baag euh, décorer bébé ya. c'est que lu mën a xew mooy lii. parce que euh, sage ay jàmbaar lañ tamit. c'est lu mën a xew mooy lii. Euh, dafa war a nekk lu fës parce que. rarement lay am. Ah, li exception la ci wàllum am doom li exception la ci donc te day lenn ak moyens yu papa jeeg yaay ji mën a am. waaw doom du du du du. du lu yomb donc ministre bi nga xam ni mooy yoll wàllu. santé waaw ak ki yor femme ak enfance ak yëpp. Ah, nañu ci jàpp li moom waaw li moom ñëpp. askan wi ak képp koo xam ne am nga parce que ay bébé yi def naa ñoom su ma jiite woon euh, fondation Servir le Sénégal. Ah, Euh, li may liggéey. Uh-huh. dinaa ci boole lii. waaw premier ministre de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr da nga koy tamit lii Abdoulaye Diouf Sarr am na lu ko doy sëkk soxla. mais tamit lii tamit war na ci jàpp. lii dafa lu ko soxla. non Amar ñu moo dëkk ndëkki ba. déedéet la nañ ko instituer. nga xamante ne dañuy wax par exemple ni ñu def bébé de l'année. Mhm. les gens en ont fait benn affaire boo xam dafa def ba mel ne tradition. Mhm. ñu def lii képp koo xam ne sage femme nga nga réew le nit mu indi ñeenti doom. Mhm. jokkool ak ñi nga war a jokkool. Mhm. ñu ñëw jàppale ko. ñu jàppale ko waaw dafay dafay dafay. non non ministère waa ministère de la famille moom suñ ko yëgee xam naa dinañ ci dugal seen loxo. am na solo servir Sénégal suñ ko yëgee dinañ ci dugal seen loxo. ak képp koo xam da ngay bonne volonté. te am ay yére yu bébé parce que il paraît ñeenti jigéen la. déjà. ñeenti jigéen la déjà. waaw meew ma dinañ. dèjà loolu rek waaw dina soxla meew ma borom xam-xam la mais loolu rek ab takk la. wala yii ñeenti jigéen kay. Mm-hmm. din xam nga yaay ji mun leen a nampalandoo. meew war naa bari mm-hmm. yére war naa bari lekk nga war naa bari. kon bokk képp ko xam ne daal euh, bëgg nga ko leen a jàppale passe partout ngeeg numéro bi 150 17 17 dina la jokkaleeg ñooñee. su ko defee bu ngeen di woo passe partout nag nee leen leeral. waaw seex ya nekk caajaay. waaw ya nekk caajaay boo ko joxee xaas ne ko maa ko def ci seex. ci seex ay seexam la ko ci seexam am na <laughs> ay seex. maa ko def ci seex ca caajaay. kay waay <laughs> quadruple yi nga xam ne ñoo nekk caajaay. man daal sooy bi loolu la. maa ko jàppale seex ya ca caajaay. Ndiaye affaire yi man 77 157 man daal affaire yi léegi dama ciy génn de. ëpp naa def na diit nañ jokk passe partout rek passe partout yeggale ko foofa. man firmi nii Ndiaye affaire yi moom ndimbalante yi moom firmi nii moom da ngay rey da ngay rey ba tas kii dañ koo war a dimbali wala moo ñu war a dimbali. démb sax nee naa. baan kii da lay tux. njaay kii day tux. muy tux déglu li muy tux. sama seul problème mooy que damaa nekk jigéen boo xamante ne damay tox may tox sama pap euh, dafa am famille ak Guinée foofu lay dund sama yaay dafa gaañu sama maam laa nekkaloon moom moo ma yar ba mu amee onze ans ci la gaañu après ma nekk ci sama bàjjan sa mbàjjeen laa nekkal macha allah moom moom mën a doomam yëpp la yemale mais dama jékki saa gis famille bi ñu ngi may marginaliser parce que benn seule erreur boo xamante ne man je en train de fumer damay tox te du ma utiliser trop du ma def dara lu bon du drogue du dara lu may utiliser du ma naan musuma xam sàngara nu mel mais sama benn loo xamante ne rek dama si accro mooy tabac parce que je fume tout le temps tout le temps une fois que ma wéet rek sama réflexion si leen lay def su ma amee problème je me confie sur ça cigarette laay dem di ko tox comme pas possible te instant yi li ma gën a bëgg sama àdduna mooy bàyyi ko j'ai un copain boo xamante ne daf ma ci jàppale man buñ toogee su ma ko nee damay dox day nangu cigarette et et tout mais day jëkk saay gis ni dama ko ci mere day obligé jënd ko jox ma ko te man loolu ça me gêne man xam naa ni que loolu dina mës a yàq sama àdduna après ba tey sa commence parce que des fois damay yéeg ci kaw dem ju tux après su ma wàccee damay xeeñ cigarette suñu waa kër dañ may jéppi njëkku samay nawle laa nekkal samay cousines yoo xam te man ak ñoom ñoom ñoo tolloo te ñoom ñëpp kenn du ci tox man kese la natt boobu dal xaw ma nattu la xaw ma tayef la je sais pas je comprends pas parce que man xam naa ni que avec ma personnalité ku ma gis te may respecte mais sama seule chose boo xamante ne nit dina ma ko waxal c'est pas n'importe où lay tuxee nag mun naa làkkatu mais làkkatu naa ba ñu bett ma si suñu waa kër xam nañ ko te dama leen ko nëbb ba sonn damay obligé su ma wàccee du ma ñibbi damay mujjee di dem foo xam te dinaa fa mën a tuxit bu vingt et une ma soog a ñibbi su ko defee temps di ma xas du ma wàcc nag ba dem ci góor du ma wàcc ba dem ci fenn dama kër copine laay dem toog mu leer ma ne foofu dinaa mën a yéeg ci kaw tux te kooku noonu may dem seeti sax moom elle ne fume pas du tux en plus daf may nekk naan. sama yaay bu la mësee bett ci kaw nga lu muy wax ak des trucs du genre mais jusque damay dem foo xamante ne dinaa fa mën ak genre yooyu ma soxla lenn la rek mais je sais pertinemment que rafetul ci jigéen loolu j'en suis convaincu rafetul ci góor sax bay rafet ci jigéen en plus ma tuxee ba pare damay jéppi sama bopp damay naan ci saa si bàyyi naa ko du ma tuxaat damay sevrer sama bopp sevrer sama bopp su ma amaatee envie damay naan su ma tuxee bii ma bàyyi su may liggéey avant may liggéey dama yëg si kaw tuba ma ko damay am problème mu wàcc damay làqatu bay daw bay santé ki may làqatu nga ne ma foo nekkoon ci kaw yën nga sa bopp fas sa kanam après nga ma ko ci kër gi ñu may xoolee visage docteur bi ñu ma ko ma am envie ma si jàppale réellement koo xamante ne dina tax man man ma arrêté toutes ces choses daal di carrément parce que boobu loolu lépp mooy sama défaut amul beneen vice cigarette rek laa am comme vice su ma ko bàyyee ma vie sera tranquille ça j'en suis convaincue su ma bàyyee cigarette j'aurai plus à craindre de quelque chose jusque dama bëgg ngeen jàppale ma te lu mu gën a gaaw mu gën maa neex parce que bëgg naa toog sama xel ba ci nekkati bëgg naa toog am fierté wu ko tuxuma je suis lucide loolu laa bëgg s'il vous plaît je compte sur vous j'ai dit à cœur ouvert instant yi dama bëgg bàyyi dama bëgg bàyyi essayé naa ko multiple reprises mais ça n'a abouti à rien ku xam na ku ma sauver naa ko ko sant torop xalaas fii fan la yow benn salle la salle de musculation la. Ah. salle d'entraînement la waaw. fii la nekk boor bi fee. Pape Cheikh publicité yi. Mhm, mhm. moom yii rek lay publicité. waaw ah, mais yii dafa baax yow kii euh, di dem sa yaram di ko defar yii dafa am solo. ki joxe ki joxe meew mi kum. meew lay joxe. Euh, léegi kii euh, moom euh, dafa war sax di jël ci meew di ci naan moom mi tux ban moom moom ban problème non moom tux mu metti la nekkee rek boo xam ne daal doy na waar nee daf ko bëgg a bàyyi parce que moom bàjj kër bàjjanam la nekk bàjjanam yar na ko fa mu ko war a yare yamale na ko ay ay doom mais moom doo ngay tux ci famille bi dem nañ ba famille bi jàpp nañ ko léegi nag cigarette soosu muy tux la bëgg a bàyyi te xamul nu muy def jéem na ko ba sonn. Ah, man de baan bi nga bindee ni kii day tux man ah, maa tiit. day tux xam ku nekk sa problème xam bul ku ci nekk bul ko xeebal sa problème. am naa mm. sama benn xarit Njaay ku dox ku ñuy wax Kara. musul woon a ñëw Ndakaaru xam naa mi ngi déglu xalaas musul ñëw Dakar ñu indi ko Dakar muy liggéey ci benn fast food ñun suñu liggéeyaan ba wàcc ci fast food bi la dem toog ak Kara waxtaan ni benn gel ñëw fa toog reer ba pare di tux Kara ngi doog a jóge Tuubaa xamul dara ci ci ci ci Ndakaaru gi mu song gel bi mbéj ko. Hmm? lu tax ngay tox yoo xanaa xamoon ni tox mi nangam man ko kara lay def man kii day tox yéen xanaa da ngeen a dof wax di wax a wax song ko ngeen porté ko plainte man ko ci kaso bi nga jëm yow toxum jàmbur sa yoon. léegi hmm, mu ñëw ñu ànd. man ko ma yóbbu ko. <laughs> ko fan. <laughs> tux lay bañ. waaw. <laughs> ñu dem. léegi léegi ban. ah sa ndaw si moom luy problème ah, ah bàyyi tux daal la bëgg te jéem na ko ba sonn mënu ci dara. ñoo nekk nii en direct na nag nañ ko nit ñi comprendre loolu mooy vitam sonn na trop nag boo jaaxaanee di tuur ndox koy tooyal. sa bopp ngay tooyal waaw mais Ndiaye ki dafa am problème. dafa am problème ñëw indi ko pour ñu ñaanal ko wala ñu wax ko conseiller ko na la mën a def ba génn ci problème bi. Mhm. li nga wax nii du lii mooy lijjanti problème bi. Mhm. ay conseil la soxla kii. yan conseil ku mu bàyyi tox. laa ilaaha illallah. lu ma la wax fii keroog jigéen ju def dara ci boppam boo ko ci bëggee dindi dindi bopp bee gën a yomb ah déggul ma la xale bu jigéen bu dugal dara ci boppam. Mhm. boo bëggee dindi loolu mu dugal ci boppam teggi bopp bee gën a yomb yóbbu. waa Ndiaye kii solution lay wut. solution ci lan. pour mu bàyyi tux mi. da dañoo. am na benn waaye bu nee dañ ko yebal sëriñ buy <laughs> buy tere. waaw bu lay ñaanal nga bàyyi tux. waaw mu dem fa sëriñ bi ñaanal ko. waaw mooy maama nii quoi du sëriñ yi. am ko yu mu ko jox ne ko de ko naan. waaw waa ji nee na may jóge foofa di ñibbi sama kër ci yoon wi laa taxawaat taalaat cigarette. waaw <laughs> léegi daal. man li ma koy wax daal lu ciy pexe léegi. kan ci conseil bi ma koy jox man baan. waaw mooy lii euh, effort rek la laaj effort bu dee day tox dix waaw kay bu dee bu fekkee day tox par jour dix. waaw na ko wàññi cinq volonté la daal. waaw volonté la na ko wàññi cinq na ko wàññi cinq. waaw kon ñii semaine bi di ñëw mu wàññi trois. wàññi trois semaine bee di bi ci topp mooy da gis mhm. wax la ne am tux c'est psychologique. Mhm. gis nga boo jëlee cigarette nga dagg ko tux ko. Mhm. nee nañu moog nga tux cigarette ñooyam donc ci xel la. beneen bi ci topp mooy tant que yaa ngi bëgg a bàyyi tux ba pare di jënd cigarette di ko téye doo ko mës a bàyyi. da nga koy bañ a yor da nga koy bañ yor. doo ko soo gisul. nga bañ koo gis. moo la ci dimbale. volonté la de. am volonté rek mais jigéen ñi sax daa rafetul. rafetul sax di góor rek. war rafetul sax di góor waaye soo ay nee na ko na ñëw mu yóbbu ko faat. am volonté rek. am na ruq yoo xam soo fa demee de. non sa waa ji naan day bañ gis. Euh, kara euh, kara kara de day xale bu jigéen buy toog kara am na ci place yoo xam ni boo ko fa. jaay yóbbu mu dem toog dina bàyyi. kara ñëw di liggéey ci restaurant bi am euh, waa ñi muy liggéeyandool ni ko rajo sàngam la ñuy déglu. mun leen moom man Ndoye Bane laa déglu thème de la semaine xëccoo bi bari mu jël jaasi ji nga xam ne mi ci li ñuy daggee yàpp bi ñuy lakkee di dibi mhm. xar rajo bi digg bi ñëpp bokk <laughs> ci yow ku violent rek nga fi <laughs> yow ku nga fi wax jàpp mbéj ko jël na rajo bi xaaj ko <laughs> moo tax dañ koo delloo delloo nañ ko Touba mu fi woon a yàgg tur bi laa rus mais kon ma ne la nii tegul delloo nañ ko Touba Kara maa ngi koy nuyu bu baax tur bi la Njaay moo koy def rek Njaay ban Njaay liiral yow ban da nga yaakaar yaa ñu moom. lii rek yow toog ci émission bi Kara ba sa xol sedd nga bëgg fee teg lii lii dina fi xaj. comme waaw déglu ko mais dina fi xaj. du déglu rek dina xaj. dina xaj aja sëñ bi dama doon génn ak benn waay. léegi ba yàlla dugal ma ëmb ma dem expliquer ko. léegi ma ko expliquer mu ne ma ah loolu moom duma la ko mën a permettre. parce que ba nag nga dem fu xam. bul ki bul xam boo xam nooy def après man tamit ma am ku ma fexewut ku ma nekkal sama doomu nijaay léegi bi ma nekkee ak moom noo xam nga jigéen ki pexem rek ma dem jox ko sama bopp ma jigéen ma bombe carrément na xam ne lii ëmb la tey def sa tama la woon deux jours trois jours yoo ma ne ko dama ëmb naa ma ne ko waa mu ne moo amul benn problème di ma jox dëgg yàlla may dem hôpital di kii ba ni ma am doom mu fay la hôpital bi yëpp ordonnance yëpp léegi ngénte ma takk ma ma amee doom sax waa delluwaat naa si waa ji woo ko téléphone ko man am naa doom mu ne ma si yàlla mu ne ko waaw mu yaakaar ne ma doon nax rek waaw léegi nee na moom day jël xale bi te man xaw ma nan laa sama jëkkër franchement moom sama jëkkër juru xale bi moom moom moo ko jur man nu ma koy waxee laa xamut nekk ko juróo kii yooyu noonu moo ma jaaxal. moom moo woon téléphone na ma si loo nekk ma a ko maa si jaam waaye si biir nii sax am naa doom mu ne ah dama foog ne rek danga may nax ma ne ko loolu moo amoon te doon nañ génn mais dina bàyyantewaat alaafee bi nag si laa waxaat ak moom xam nga yaa ma gën xam rek. mais moom dama ko dama wax ni ma ba mu tudd naa la yóbbu la ah, kii xalaas parce que doom bi yàgg yàgg naa ko récupéré. ma ne ko man noonu nan naa koy waxee sama jëkkër ñi nga xamante ne bii moom ma teral ba takk ma sama sëy mën na see jaare yaa ko kon loolu man nan laa koy waxee. Njaay ban ndaw si ku ko problème amul Njaay ndaw si mu ngi ànd ak Ablaye Diop. Mhm. non non ke ke ba. Aliou Ba la doon àndal. Mhm. ba wan ci lor. ci 15 jours yi bi mu ko xamee ma dem wax ko Aliou Ba. Aliou Ba ni ko du man rejeté ko. Mhm. ci saase ndaw si dem seeti benn mbokkam. Mhm. bu ko daan labat muy bañ mu nangu relation bi siq ak moom la muy siq ak moom. une semaine après mu ni ndaw soo waa mbokkam boobu damaa ëmb. loolu la ñuy woowee système parrainage. voilà mu parrainé ko mbokkam ma <laughs> bi mu ko parrainé mais par par par par su nangoon parce que mbokkam la. Mhm. mu am doom mbokkam bi takk ko. muy sob soblu nag woo far wam ko njëkkoon a jiin ne ko biir bi ma la jiinoon nga bañ am naa doom mhm. ba sama benn mbokk takk na ma mhm. waa ji ni ko doom ji sama ko dama koy jël si wax na dëgg wax na dëgg ki bañoon ka bañoon yow moo ci am dëgg dama ne wax na dëgg ne moo jur ji wax na dëgg waaw tam ko njëkkoon a jiiñ non jiiñu ko kay da ko wax waaw da mu bañ mu dem gaaw xam ni dem dem utili ko bàyyi. Mm-hmm. jege ko jiiñ ko ko waa ji nangu. Mm-hmm. bi mu ko nangoo puisque ay mbokk lañu mu bàyyi ko ba mu am doom mu ngénte ko takk ko. Mm-hmm. bi mu ko takk ko nag après nag ci la gisanteeg waa ji waa ji ni ko am naa doom. ndaw si ni ko am naa doom mun ko kon sama doom dag ma koy jox. léegi moom luy problème am. xale bi problème am mooy ni mu koy waxee jëkkër ji. parce que nee na moom xam jëkkër ji déedéet. ah ci lu muy gendarmerie wala police. def ko na wax leen la li ni leen doom ji doomi jàmm. déedéet da leen di expliquer affaire bi. waaw expliquer leen. waaj parce que waaj perturber sëyam la bëgg. waaw waaw. ah waaw. na dem gendarmerie wala police. ñoom dinañ ko lijjanti. waa ni ñu koy lijjantee loolu nag. ah loolu nag. Euh, yoon la loolu kay ci yoon nga koy jox rek. mais moom mënu ko lijjanti ñaar mu mën a am. waa ji kalaate dil bi sëy bi tas. waaw. waa ji du jubóog ndaw si ndaw si du jubóog jëkkër si. waaw doom ji nekk ci kaaw mel ni ñëwoon na fi bërgi démb de. salo eh, présidence jot na de. Ah. mais nag vraiment nag Ndiaye euh, lu ñu mënti wax am na nit ñoo xam ne man je comprends pas quoi. ah vraiment. Euh, non non non nañ dem allo président bu subaa ñu yëgal lii vraiment lii c'est compliqué. résidence de président de la république yaa ngi ci biir palais de la république muy résidence du président de la république bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier de Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 <laughs> sama ndey pare bi yàgg na <laughs> la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF e Léopold Sédar Senghor jaar fi 1960 80 Abdou Diouf jaar fi 80 80 2000 Abdoulaye Wade jaar fi 2000 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat fi ñu xaarandi ba xam kii woote bëgg a jot président de la république kooku kan la war a doon ak fan lay wootee ci biir réew wala ci bitim réew salaamaaleykum mbete gettu xar bay fu la wala booy wootee téléphone da am ànd ak yar tuuti tamit nag boole ci moo gën waaw ba ba benn wax la waaw daan ak yar waaye man du ma sa morom man du ma sa morom avocat la dama lay wax rek avocat la am na yoo xamante ne boo koy wax da nga xool ak man man du ma sa morom xoolaatal li nga wax man du ma sa morom la ma la ma gën a bari nga man man répondeur la waaye dama ne boo dee répondeur yi nga xam la ngay wuyoo téléphone waaye mel ni booy wuyu mel ni ku nekk bëy maître waxal li waral sa woote di dee lu ne tegi maître waxal li waral sa woote wala sinon ma yóbbu la bu avocat waaye président laa soxla woon président dafa génn mënoo koo jot su ma dox sama jox sama ndax jël troisième mandat bu ko def ci nopp Sénégalais yi di ko naxasal nit ñi man taxaw naa carrément daan na loolu mën nekk du nekk te nekk président nag ne ci ñaari niim ci ma daa dugg sa daa dafa fekk kay. maître maître. noppay dégg. maître ndax da ngaa mos a toog fenn dégg président ne man damay def troisième mandat. waaye dama ne laaj nañ ko waaye leeral lu laaj ka. leeral lu waxul déet dama ni. ndax xam naa dama dama dama xam naa xam naa la muy dindi ci biir xelam. dama ni ndax président moo toog ne damay laaj troisième bañ ko laajee waxulaa waxul déet. déet yow yow ba waxulaa waxul déet ci ci waaw lay mujj. tontu woo ma de yow tontu de. man du yow yaa ma war a laaj sax man dama lay yóbbanti dongo du yow yaa ma war a laaj li ma war a wax ak président waxal sa wax waxal waxal sa du wax bu ñëwee daal ne man def naa benn sortie bu am solo waaw euh, troisième maanaam bu ko jox ci defee gars yi daal ci kawam de te man bu ko defee doon ma ko protéger kon looloo war a lool sa sortie sama waay la loolu la sama waay la ah yow laay déglu noppay déglu man looloo war lool sa sortie pour sortie rek génn ne président daal mënoo def troisième mandat point jeex na. waaw su ma defee sama point de presse bu ko journaliste laajee dama leen tontu. yow li ma xam ne laa leen eh, tontu deux mille vingt quatre. Ah, waaw waaw waaw moo tax ma ne troisième mandat war fi mën yow a man avocat laa te jàng naa te mën naa nekk yor réew mi. maître mënoo muñ rek te dem retraite nga toog noppal sa yaram. président bu retraite foo ko gis. Ah. avocat bu retraite foo ko gis. Ah. loolu moo la woon sa bopp am xam-xam. Ah, yow jàngoo jàngoo de. président ngay laaj kay ma tax di wax. dafa maa jomb. yow da ngaa a yor réew. dafa maa jomb. Eh. Macky Sall ku ne ko woon di nga yor réew mi di la ko gëm. yow de di yegg université di jël muraake di ko di see. man réew mi kuy defante mënu koo te yow. man damaa defante dëgg dong la yow xam nga yéen xamee wala dëgg du dëgg. loolu mooy seen problème bu waxee dëgg ngeen ne defante. yow ku yaay defante. ku ne la benn nga di ko fukk. waaw mais noonu la. bëgg a yorum réew am la. sa dernier mot. sama dernier mooy moo daane yàlla nga jógee pale boobu tamit su ma dugg see di nga xam ne léppay dëgg. ayca jàppal kon yow it na votre correspondant peut-être. yàgg nga ci yàgg nga ci dafa la neex dafa la neex. présidé par le chef de l'État Macky Sall. Il annonce de fortes mesures par rapport au Covid-19. Nous l'écoutons, c'est lors de la cérémonie de levée de couleur. Désormais, nous ne sommes plus à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri. genre le covid est entré en Afrique. Euh, il ne faut pas l'exclure, d'autant plus que les voyages se maintiennent euh, entre le Sénégal et les pays où aujourd'hui ce foyer est devenu très sérieux. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie. Nous avons des communautés très fortement représentés dans ces pays, entre autres. Et nous avons aussi des Sénégalais qui vont et qui viennent. Donc euh, tout à l'heure, nous, nous, allons indiquer les mesures euh, de prévention, surtout que euh, dans la journée, je serai exactement l'évaluation de la situation réelle au Sénégal et j'en rendrai compte.